actuellement ngay seet kat maanaam di yëngu si làmb te loo mosu wax si làmb lu ne yaakaar naa gars yi teg seen bët. waaw kay. moom moo loo ko gën a pare moment bii kan moo gën a. loolu wax des waaw man man fekk naa ko fii muy muy entraîné maag saa mi ñoo àndoon waaye koo gis tamit def nga xam ne moom du du du gone kenn. du gone kenn ci làmb amul kenn. waaw amul kenn ku mu naan demal ak ndax man man toog naa nii seetaan ko muy entraîné ma xamante ni kii nii li muy kuy jëflanteeg moom ci lu wóor ngay jëflanteeg moom waaw kay bàyyi tamit leen dafa am mu loo bokk woo ji bëri mu bëri ndax ndax moom kuy woo ji fit mbër ci fit ko ëpp ko fit bu ko defee maam laa ma jooju noonu lay demee waaw ñu ñëw daal yàlla nañ ñëw ak jàmm ñu fekkee lan ngay tàggatoo waaw di sant di sant ñëpp waaw kay di wax ne tamit comme ñuy fi ñuy fii ci westuwaar waaw ñene dañu bëri nag ñu bëri ñoo xamante ne maa ngi ci jéggulu nag ñu bëri dañ lay di di di la woo nag di bëgg ñëw te ñu ngi ci tëliwaal yi fekkee tamit ku soxla suñu numéro mi ngi ci 76 bi 349 24 99 ku ñu ci jokkoo incha allah moo xam ne mu mën di seet ni ñu seete ci làmb dinañ xool seen mbir bopp te luñ wax dañ ci kàttanu yàlla. waaye Diagne efficace nag mbokk ku ko bëgg jot ku ne da nga koy woo 76 349 24 99. sama xarit la waaw sama xarit la sama lépp la. dafa bëri ñoo xam ne dañ may woo toujours naa maa boo ñu bàyyee ci whatsapp ci kàttanu yàlla dañu ko liir bu lu mu aajoo ci kàttanu yàlla bu ñu ci kiyee dañ la ko liggéeyal incha allah